seen chaîne bu mag bii di allo Dakar TV international seen émission ëttu xam-xam ngeen ci ànd ak sëñ Mortal Tawféex xam ngeen ëttu xam-xam émission la boo xam ne si maanaam dañ ciy waxtaan la lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ci wàllu asraar xam-xam ci wàllu garab yi xam-xam ci wàllu mala yi xam-xam ci wàllu tur yàlla xam-xam ci wàllu feebar yi dal doomu yi waaye tamit daañu wax chaque émission daañu wax li gis ci actualité daañu ci wax bu ñu tàmbalee émission bi am na lu gis ci président Ousmane am na lu ñu gis ci président Macky Sall dañu def istixaara ñu won ñu ne Ousmane Sonko bu deful ndànk Macky Sall dana ko tëj tëjlu bu fekkee tey dëgg dëgg dëgg dëgg ñaan la wut Macky Sall mën na ko tëj man mën na ko tëj kaso waaye tëj boobu bu ko Macky sàll tëjee dana indi problème dana indi waa Casamance yi mbokk yi mbokkam yi nekk Casamance daañu dugg ci dëkk bi indi problème indi ay xeex yàq oto yi loolu lañ ci woon ci gént. li ñu gisal président Macky Sall moy dañu gis ni élection yi ñu jëm di 2024 mom président Macky Sall sax du bëgg du bëgg présenté wu. waye ñen ci ñoo ko jege ñoo koy poussé naan ko man nga nek candidat su boba dana ko jëm su boba direct du bari dana tour te dana indi problème yi mak su ko défé kon nañ ko xamé non lool lool lool lañu gis mom lañu ñu su ko défé kon manam képp ko xam ki bëgg am ay léral lu ci gëna lér man nga woote ci numéro bobu di jàll ci kanam écran bi.

feebaru jabet jabet type 1 wala wala jabet type 2 ñaar yooyu moo ci am ñaar yooyu yëpp dafay indi xetu gémmin feebaru canceru biir dafay indi xetu gémmin feebaru ulcère dafay indi xetu gémmin feebaru estomac dafay indi xetu gémmin tux cigarette dafay indi xetu gémmin naan sàngara dafay indi xetu gémmin koo xam ne kii maanaam sa gémmin maanaam sa bëñ dafa am dafa bënn sa bëñ dafa bënn bën bënu bën bën boobu ngay lekk lekk googu di fi dugg bu fa yàggee dafay indi xetu gémmin moom loolu mooy feebaru xetu gémmin yu koy indi waaye dañ koy saafara dañ koy traité képp koo xam ne kii dal na la mën nañ ko saafara mën nañ ko traité traitement bi juróom-ñaari fan lu mu yàgg yàgg ceew ci lañ koy saafara bam mu deñ wér beneen nga xam ne dootu ñëwaat. kon damay ñëw ci beneen feebar bi muy feebaru hémorroïde mu di jàngale Kajoor mooy lan feebaru hémorroïde dafa am bi nekk ci biiru nit ki am bi nekk ci biti. hémorroïde feebar la boo xam ne si feebaru togg la ñi nga xam ne si dañuy liggéey liggéey togg ñoom lay dal ñi nga xam ne si dañuy toog toogaay bi yàgg safoor yi téer yi commerçant yi nga xam ne si dañuy toog di jaay lu yàgg hémorroïde nag toogaay bi yàgg boobu da koy indi waaye tamit yan lekk moo koy indi mooy lekk yu bëri pat ñi nga xam ne si dañuy jëfandikoo pomme de terre bu bëri patas bu bëri macaron bu bëri vermicelle bu bari mburu mu bari pain lu bari lekk yu bëri pat yooyu boo ko dee jëfandikoo lu bëri daf lay indil feebaru hémorroïde ndax bu fekkee da nga lekk pat lu mel ne ceeb bëri boo ko lekkee ba noppi da nga war a naan lu mel ne gitax wala nga naan buy pour li nga lekk mën a digéré wu waaye boo ko lekkee ba noppi naan ataaya ataaya yi dafay tax lekk gi du gaaw a rees wala nga naan ndox ndox mi dafay tax lekk gi du lekk gi du gaaw rees su ko defee kon kooku mooy hémorroïde bi nekk ci biir nit ki. nga xam ne ki mu nekk ci yow da ngay gis ni da ngay géex géex googu mën naa day day ànd xet te géex googu mën na dem ba indi la sax xetu gémmiñ waaye tamit da ngay dégg biir bi di jooy sa biir di jooy naan gur di jooy su boobaa xamal ne am nga hémorroïde bi nekk ci biir bi nekk ci biir it ki nekk ci yow dafay waral ngay seere mën naa waral ngay toog ñaari fan ñett doomaa dem toilette te doomu aadama bu fekkee wér nga di lekk normalement dina ndox chaque jour war nga mën a dem toilette ñaari yoon wala benn yoon waaye bu dee ëmri dafa nekk ci yow bi nekk ci biir mën naa waral ñaari fan ñett ngay seere doo dem toilette am na si ñoo xam ne si sax pour ñu dem douche dañuy naan meew pour seen mbir daw wala ñu nandulu naan lu mel ni ñandam pour seen mbir daw seen daw wala ñu naan buy wala ñu naan lu mel ni li ñuy xam ne si moom la ñuy wax sidéem sidéem Mali loolu yëpp day tax sa biir daw waaye loolu yëpp faju ko li koy faj mooy am nañ ci tere am nañ ci saafara bu koy saafara boo xam ne si garab la goo xam si dafa ànd ak alxuraan karim ndax yàlla moo wax te alxuraan ne maa farat naa fi kitaab min shay'in téere biir alxuraan kat bàyyiwu dara lépp mi ngi ci biir alxuraan karim comme lépp mi ngi ci biir alxuraan karim nag koy ubbi xool ko gëstu ko mun ko gëstoo xam ko nag daal koy mën a jëfandikoo ndax alxuraan karim dafa bëri ay secret yu ci nekk bëri ay xam-xam waaw li kulli daa in dawaan la yonent bi sallallahu wax lépp loo gis rek muy tawat am na lu koy saafara su ko defee kon émorite bi nekk ci biir noonu lay demee bi nekk ci biir nag doomu aadama bi fi muy demee toilette fi muy demee wanag mooy def benn bul benn picc picc boobu nag dafay newi di metti moo waral nit toog du ma taxaw da xel xel mi jaxasoo ngay tayel sa yaram di diis gann kooku mooy émorite bi nekk ci biir mooy émorite bi nekk ci biti mooy picc bi picc bi mooy bi nekk ci biti bi nekk ci biir dafay waral doomu aadama bi bu lekkee du gaaw a rees ngay seere sa biir du jooy naan gurur léeg-léeg ngay géex géex gu am xet boobu mooy hémorroïde bi nekk ci biir nit ki ñaar yëpp dañ koy saafara dañ koy traité ci juróom-ñaari fan ci dañ koy saafara kim dal mën naa woote ci numéro yooyu di jàll ci kanamu écran bi muy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wala nga woote ci beneen numéro bi muy 78 592 64 54 78 592 64 54 78 592 64 54 boo ci wootee daañu la mën a saafaral sa émorite di wax ne ñu ngi fii ci Ndakaaru Ndiaye ñu ngi Parcelles Assainies unité 15 dépôt gaz bu unité 15 ci ku fa taxaw boo wootee ci numéro yooyu di jàll ci kanam écran bi ñu jël si la indi la kër gi ci kàttanu yàlla ak mbaxam mbokk yi nekk bitim réew it ci numéro boobu la ñuy woote bu ñu defee double zéro deux cent vingt et un soixante seize trois cent soixante 76 369 27 27 wala nga def 00 221 78 592 64 54 78 592 64 54 su ko defee kon liñ koy tëjee mooy wàllu rab dañoo gis ne rab dafa bëri ñu muy yàqal ñu bëri di si am ay jafe-jafe ñu war koo leeral yàlla moo ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni man yàlla ma bind doomu aadama ak jinne ngir ñu jàmm ma léegi nag yàlla bi bindee nit dafa bind jinne ndax wala xad karam na bani adam la wax may bind nit waye waxan na ni wama khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni man man yàlla may bind jinni ak nit ngir ñu jàmm legi nak nag amé ci nit ñi ay jif ño xamni ci gëm yàlla dañuy def lu leen neex gëm xërëm duñ julli di def lu bon loolu la amé ci jinne yi ño xamni ci gëm yàlla dañuy def lu bon jinne nag yàlla may jinne yàlla dafa may pouvoir ndax jinne man na la wax lu ñewugul waye li xas ba weesu fàtte moom jinne waaye jinne it ki mu nekk ci yow la sonal am na ay conséquences yu mën a indi ci yow mën na la indil làgge mën na la indil bët bu pat bët bu turu mën na la indil dof man na yàq àdduna nit ki waaye ku ne ak ni muy def ci am na ñoo xam si jinne ji nekk ci ñoom dafay waral dañuy dañuy yëy seen lamine mën na ku yëy si moom si ngoom xam ne kii fu mu toll day yëy lamine mel na ku yëy si ngoom kooku jinne moo koy def jinne it am na jigéen ñoo xam ne si jinne dafa nekk ci ñoom toujours ñuy crise di daan ay rab waaye bu ñu daanoo ba noppi seen kanam seen sexe dafay génnee deret am na ci góor ñoo xam ne si maanaam bu ñuy daan ay rab di say bu mu paree dañuy génne seen seen sakkara mën yu kooku jinne moo koy def. mën na jàpp doomu aadama bi ba du bëgg a ci biir nit ñi da ngay gis koo xam ne kii kër gi mu nekk ñëpp toogee moom day bëgg a beru du bëgg a toog ci biir nit ñi kooku jinne moo koy def. mën na jaaxase xelum nit ki nit ki am xel xelam di jaxasoo wala ngay xel ñaar mën naa waral saa dencee dara xaalis wala nga denc montre wala nga denc maanaam euh, caabi oto mën na laa jaxase ba doo xam fi nga ko fi nga ko tegoon kooku jinne moo koy def waaye tamit na waral ngay xalaat xalaat ñaaw sa kooku jinne moo koy def jinne mën na jàpp jigéen sax mu dem bay jaay boppam di cagatu kooku jinne da koy def bu dee góor nga mën na laa xiir si foo di mooy yàlla ak jigéen kooku yëpp jinne moo koy def dafay dal góor dafay dal jigéen waaye dañ koy saafara ba mu ba mu denc yow ki mu nekk ci yow mën nañ ko saafara ci fukki fan ak ñett treize jours boo ñëwee ñu jox la sangat looy suuroo ak looy sangoo mu saafaraw denc yow ba set wicc

numéro boobu mooy numéro whatsapp bi numéro whatsapp bi mooy 78 592 64 54 mu nekkoon seen émission ëttu xam-xam ngeen ci ànd ak Mortal Tawféex ñu leen jox dig daje ci beneen émission ëttu xam-xam jërë ngeen jëf